Pour suivre l'actualité en temps réel, abonnez-vous à votre chaîne euh, YouTube Tawfekh Production et euh, de suivre avec nous l'actualité nationale et internationale. ndaje ndaje tey bi dafa am solo lu ko waraloon mooy dañoo am lu ñu tuddee loi sur la couverture maladie universelle. adoption boobu adoption loi boobu dafay laaj balaa laataa loi bi di atterrir assemblée nationale ñu saafante ak ñoom expliquer leen lan mooy projet bi. lan mooy enjeu yi ak point yi nga xam ne vraiment bëgg nañ ñu insister foofu ñu génn ci ndaje bi nag am ci satisfaction mbégte bu bëree bëri bëri parce que permettre nañu ñu expliquer leen lan mooy couverture maladie universelle lan la gouvernement Sénégal nam ci couverture maladie universelle lu mu ci nam yomb na mooy képp kuy sénégalais ak foo mënta tonu ak sa poos nu ma mënta toll soo feebaree nga mën a faju ci anam yoo xam ne dina méngoo ak sa feebar te du la sonal loolu mooy lu mu ci jublu loolu nag dafay laaj boo koy mettre en œuvre Sénégal député bi xam lan mooy défi lan mooy jafe-jafe ñu ñu jànkonteel ak ñu mënte apporter solution loolu dafay nekk programme boo xam ne dafay laaj xaalis te député mooy voté budget loolu également ñaax lañ te côté boobu beneen bi ci topp mooy loi bi bu ñu xamee contour bi xam article bu bu nekk lan la ëmb bu demee assemblée nationale dina yomb voté loolu daaw moo nekkoon solo ndaje bi ñu ci gërëm député yi ak surtout présidente euh, réseau de parlementaire pour euh, population et développement. oui programme couverture maladie universelle dafa nekk euh, benn pàcc ci lu ñuy tuddee protection sociale protection sociale muy Sénégal muy France ak yeneen réew yëpp ñëpp xam nañu dafay laaj xaalis bu bëri. Euh, te gouvernement Sénégal dafa bëgg couverture maladie universelle boo xam ne dañ ko basé ci équité maanaam nga nekk béykat nga nekk sàmmkat nga nekk nappkat nga nekk fonctionnaire nga nekk travail ci privé dañoo bëgg quel que soit son revenu nga am couverture maladie universelle loolu dafay laaj financement naam gouvernement bi def nañ financement ay effort yu bëri bëri mais dañoo bëggoon ñaaxaat également député yi ñu jàppale également agence te loolu ils l'ont très bien compris te loolu ñoom vraiment dinañ ko porter te li ñu wax vraiment te gis nañ seen engagement bu ci des mooy dañoo gis ne quatre-vingts pour cent quatre-vingts au moins au niveau de la de cette treizième législature am nañ au moins quatre-vingts maires député maire yoo xam ne ñu ngi nekk ñu ngi fa nekk wala ay député yoo xam ne président de conseil départemental loolu dafay laaj également. ñu expliquer leen lan mooy défi du financement parce que collectivité locale également dañu war a contribuer ci financement euh, couverture maladie universelle. loolu yëpp moo nekkoon ay sujets yoo xam ne jot nañ ci discuter te jël nañ ay engagement dinañ dajewaat nag sali fan yii di ñëw vers fin août boo xam ne ñetti fan lay doon dinañu permettre ñu gën a xóotal waxtaan li ñu fi def pour que aujourd'hui loi bi bu ñëwee assemblée nationale préoccupation.